asalaamaaleykum mbokku téléspectateur suñu chaîne Kifne TV ak ah, mbokku auditeur u IFK e rajo yëpp bu ñëwee tey ci actualité bi ci vendredi 7 mai 2021 actualité bés bi dañ koy tàmbale eh, ak Macky Sall daal eh, mu ngi dessiné waat eh, nouvelle banlieue bi parce que Kër Massar daal mu ngi koy def quarante sixième mooy doon quarante sixième département bu Sénégal selon document yi nga xamante ne daal fësal nañ ko sous préfet bu Bambilor ci alxames bi ñu génn daal sangalkam ak plan jaxaay daal dinañ doon ay arrondissement medina cubb nag dinañ ko rattaché si commune bu kam ak ñàkku rab tiwaawon pël euh, ak euh, ak tiwaawon pël ak ñàgg jaxaay nag euh, dina rejoindre département bu kër massar avec nouvelle configuration boobu nag commune bu bambilor nag sera délecté de cinq villages kunun kunun galam kër daawda sar kër njaay cité mbaba gisee ñoom nag dinañ leen rattacher désormais ci commune bu Sangalkam Bambilor nag euh, se trouve avec 14 villages au lieu de 19. Nous ñu ko créé en 2011 commune de Parcel. parcelle euh, Niakourab euh, faisait jusqu'ici partie du département bu mais avec projet avec projet nouveau redécoupage bu région de Dakar dina rejoindre département de Kermassar. waaw bu ñëwee ci Lamine Diack nag euh, dina ñëw daal fii ci Dakar ancien président bu fédération internationale bu athlétisme démb nag euh, jot na passeport am te daal euh, dara daal mënatu kaa tere mu ñibbise fii ci Ndakaaru mais nag. bi nga xamante ne daal euh, condamné woon nañ ko foofu justice français bi 20 septembre dernier quatre ans de prison mu war ci def euh, ñaari at prison ferme implicite li ko waraloon nag mooy implication ci benn euh, réseau bu corruption bi nga xamante ne daal da doon nëbb ay kaaw dopage fële ca Russie Lamine Diack nag moom dafa nekkoon résidence surveillée depuis novembre 2015 ca France Jakarta man ñu rayon ay policier feulé ci fatigue verdict bi daanu na deux ans de prison dont six mois avec sursis A peine biñ ko infligé nak ci jeudi bi contre cinq policiers yo xamante dal lim nañ ci mbiru meurtre bu man bu moto Jakarta Lamine Koita Lamine Koita nak décédé na le 10 février 2020 ci benn course bu nga xamante ko don amal moom ak élément bu brigade bu recherche bu police bu Fatick autopsie bi nag euh, biñ ko defee daal si euh, kooru Lamine Koita bi dag si lendemain bi nga xamante ne génn na àdduna dafa révélé ne daal euh, mort naturelle si ay suite de cardiopathie valvulaire yoo xamante ne ischémique ak décompense ak absence de signe daal loo xamante ne dañ ko doon dañ ko doon sonal wala yooyu noonu daal eh, ak trace violence ñoom gis ñu ko résultat résultat que famille bu victime boobu nag moom daal ñu ko daal ñu soutenir nee na Lamine Koita daal dañ ko rey te ay policiers yooyu ñoo ko rey. waaw korité bi nag dinañ ko célébrer le 13 mai fépp ci Sénégal selon astrophysicien bi ñuy woowe nit xaal ngesum Ce basant sur les coordonnées scientifiques, CFCM a décidé cette année de fixer l'avance la date de l'Aïd al-Fitr jeudi jeudi 13 mai 2021 astrophysicien bu international Nidal Gesundar a confirmé ces mêmes données astronomiques Il a affirmé le croissant lunaire bi ne sera pas visible du le mardi 11 mai au soir dans la pratique aucun endroit ci monde bi dal duñ mën a gis qui bi ci mardi 11 mai légui nak il sera en revanche visible dans le monde musulman dans le continent américain et africain dans sept ci Europe ak France date de l'Aïd el Fitr euh, donc dinañ ko japp jeudi 13 mai 2021 et ce Dieu est le plus savant yalla yalla rek xam lepp bu ñëwee déficit bi nga xamantene ne euh, nek nañ ci mooy euh, recettes yi daal dañoo wàññeeku caisse de l'État yi nag euh, état bi daal ñu ngi nekk en souffrance côté finance publique bi nag les choses ne sont toujours pas réjouissantes bi nga xamante ne nekk nañ ci à la fin de premier trimestre bu année bi gestion budgétaire bi nga xamante ne caractérisé nañ ko par diminution wu recette budget yi daal wàññeeku budget état bi recette yooyu ñu collecté woon ñu xamante ne mu ngi toll ci quatre cent quatre-vingt-dix-huit milliards quatre cent quatre vingt dix huit milliards sept cent millions moom la ñu contracté woon de contracté de huit virgule huit ci fin premier trimestre bu deux mille vingt et un boo ci ay dépenses yi euh, publique yi daal ñoom wàññeeku nañ de un virgule cinq pour cent mu ngi wu ci. 1012 milliards 600 millions. En conséquence, le euh, déficit budgétaire est estimé de 513,800 513 milliards 800 millions si fin au mars 2021 contre 480 milliards 600 milliards 600 à si même période année dans le dernier renseignement prévision et études économiques waaw actualité internationale docteur Mathi Diso mooy directrice régionale bu OMS bu Afrique nee na condition yi nag euh, réunir nañ daal pour une urgence. dans les pays africains près de 4,6 millions de cas de Covid-19 moom la ñu recensé 123 000 personnes ñoom ñoo si génn àdduna comme reste du monde bi ñu ngi observer daal avec une grande inquiétude daal njaqare bu rëy si situation boobu noonu foofu ca Inde si continent africain nag euh, am na potentiel augmentation kaay avec nouveau variant yi nga xamante ne mu ngi circuler les faibles euh, niveaux de vaccin vaccination bi faible niveau de vaccination bi la fatigue de la population ak sans adhésion ci mesure préventive ak assouplissement des restrictions yi nga xamante dal daal nañ mesure barrière ak daal dal amane amna dal euh, ki bu ci xawa am tuuti càggante bu ci am conditions nak euh, réunir nañ pour une réurgence ce qui passe en Inde nag euh, warul produire euh, warul warul produire faneen si si nous préparons maintenant nag nu payerons pas le prix plus tard nee na nag euh, il faut daal euh, ñu préparer bu ñu ci teel a jug daal du ñu sonal alerte docteur Matshidiso show mooy kii bu ñëwee si vaccin anti Covid 19 Russie nag lancé na le en une seule dose waaw daal Sputnik boo xamante ne daal benn dose rek nga koy jël du doorati ñaar Russie nag annoncé na jeudi homologation bu version light. Les airs de son nouveau vaccin phare contre le coronavirus Sputnik 5 qui s'administre en une seule dose euh, contre deux pour la version de base, selon communiqué du Fonds de russe des investissements directs RDIF qui finance le développement du vaccin B Sputnik Light euh, affiche une efficacité de 79,4% contre 91,6% pour sa version en deux doses bi comme ben dose bi qui l'efficacité bi efficacité bi gëna a que ñaaru bi nga ñaari dose ngay actualité sportive Real Madrid Zidane euh, Dal bo mo moytul dal euh, dina dem élimination bi nga xamantene mu ngi menacer provoquer ay conséquences yo xamantene man nako jur ci groupe Casablanca boobu selon le selon le média Goal direction bu club madrilène bi mu ngi estimer que Zidane dal ne devrait pas warul rester dal ci banc wu merengue la saison prochaine quotidien britannique technicien bo nga xamantene aurait transmis des signes euh, pas du tout yoo xamante yu avant. avant même le match retour à Stamford Bridge fële ca Chelsea. réhabilitation stade Léopold Sédar Senghor Demba Diop euh, Mbour Kaolack ak Diourbel quarante milliards nag euh, dinañ jóge foofu ca Chine c'est Matar Ba moo def annonce bi démb ci Sud FM pour ce qui est de quarante milliards yi ñu annoncé pour réhabilitation daal que euh, stade bu Léopold Sédar Senghor ak yeneen yi. loolu nag euh, loolu daal prévoir ko budget bi nga xamante ne moom lañu consolider pour investissement sénégalais benn coopération internationale avec république populaire bu Chine ñoom nag ñooy def investissement yooyu pour remettre euh, état du Sénégal via les via ses différents stades Elimanel euh, Fall bu Diourbel Demba Diop Dakar Caroline Faye bu Lamine Gueye bu kaw la jërëjëf mbokku téléspectateur suñu chaîne Kifne TV foofu la ñuy tëjee xibaaru bés yi di rafetlu seen kóolute ak ci seen mbégte ci seen rajo télévision Kifne TV ñu yendoog jàmm jumaa mubarak